dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw coppite yi daal dina maat mbokk internet info 221 niki démb ca conseil des ministres bi nga xamante ne njiité réew mi ah, Bassirou Diomaye Faye moo ko daal di jiite ci loolu sax nag mi Abdoulaye Timbo ah, mi nekkoon maire bu euh, ville de Pikine nekk nijaay ci président bi fi nekkoon di Macky Sall daal ko yóbbu fale ta aéroport international Blaise Diagne Bassirou Diomaye Faye daal na yóbbu nag maire bu euh, Pikine fale ca aéroport ca boppu présidence bu conseil administration yor la ci wàllum di travaux publics Pape Abdourahmane Dabo moom moo désormais occupé fonction PCA bu aéroport international Blaise Diagne jotoon na rek fal ki nga xamante ne ci poste boobe ci atum 2021 kii di euh, jërbaatam président de la république ma Macky Sall ci jamono jooju leneen ci xibaar daal dina bokk rek nag ci émigration clandestine daal dinañu tegaat ab gaal goo xamante ni yeboon na lu toll si juróom-ñaar fukk ak ñeenti doomu aadama fekk nañ ci ñaar fukki tout tànk marine nationale liggéey bu rafet boobu ni ki démb ci àllarba bi Euh, immigration clandestine nag di gën di woy fale nag ca yéen migrant yooyu sax ñu ngi jóge woon nag ci base navale nag bu Dakar ngir rek euh, indi nañ leen ca base nag navale bu Dakar ngir jébbal ko autorité yi ak lii di marine nationale def liggéey boobee mu doon loo xamante ne ba tey ji dafa mel ni rek nag ndaw yi pare gu ñu ngir teg ci suuf lu jëm ci wàllum immigration ndax ba tey ji rek amuñu liggéey fi ñu nekk fii ci Sénégal leen ci ay xibaar wutali ca Louga ay sabar lañ fa organisé woon ay xale yu ndaw di ko daal di fa def lu jéggi dayoo tax na rek nag euh, police procureur de la république daal di convoqué ndaw yooyu nga xamante ni dañ doon fecc fecc bu ñaaw mu doon mbir bu siiw nag nit ki démb ci àllarba bi arrestation bu ñetti nit jot nañ ci teg loxo ñetti ndaw yoo xamante ni dañ leen impliqué ci benn sabar bu ñu organisé seen boo xamante ne sax dafa jéggi dayoo Louga ndaw yi nag fukk jàpp fukki at jàpp rek fukki at ak juróom ñoo doon def sabar boobee mu doon loo xamante ne rek dañ doon tëgg ay ndënd ci microcentrale bi nag ñu nemmeeku woon ci kenn ku du jox lu ñaa xarando junior mu nekk benn tiktokeuse bu tiktoker bu siiw euh, ba tax na rek nag ñuy souligner jàpp rek ne dafa daal di jot vidéo yooyee nag wër réseaux sociaux ñu bari daal di ko ñaawlu moo tax procureur bu daal di bu daal di jël ay matuwaayam invité nag ndaw yooyee pour ñu wuy su leen ngir rek ñu mun leen teg si yoon ndaxte lu ñu mel ñu bañ ko daal di defaat leneen ci ay xibaar na bokk rek ci choc exécutif législatif diggante fitna bi am ci diggante nguur gi ak assemblée nationale Alioune Tine di njiital dem senteur nag yëkkati na ay dëgg teg ko ci ndoor du président de la république Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ak kii di Amadou Mame Diop nag ci benn entretien boo xamante ni jot na ko amal ñi di waa Vox Populi Alioune Tine di njiital Africa Jom Center jot na prononcé wu ci fitna yi am euh, ñàkk déggoo bi am nag ci nguur gi ak assemblée nationale loolee waral li ko waral bokk ci déclaration de politique générale bi nga xamante ni Ousmane Sonko war na ko def te ba tey ji nag mu ne di ko def faw rek ñu soppi règlement intérieur bu assemblée nationale tey bi nga xamante ne moom la Sénégal di euh, traversé nag lépp lu ci war mooy fas yéene fexe ba askan wi rek daal di am jàmm ba tax na rek nag politiciens yi nga xamante ni seen bëgg-bëgg rek la ñu bëgg ànd ceeg doole loolu dañ ko war a bàyyi ndaxte nag Sénégal yi sonn nañ ci fitna yi waaye sonn nañ tamit ci député rawatina ca la am assemblée nationale moom mi nga xamante ni bokk na ci ñiy sàmm ak yelleefu nit ñi bëgg na rek Bassirou Diomaye fay jël ay matuwaayam faxee rek ba saafaral jafe-jafe am ci assemblée nationale waaye tamit fexe ba Ousmane Sonko fas yéene agir ci manière joo xamante ne dina gaaw mun a def nag politique am ndaxte loolee dafa nekk lu yàgg ci Sénégal ba ñu amee suñu moomee suñu bopp ba tey jii leneen ci ay xibaax daal dina bokkaat rek nag euh, ci nag euh, mbirum euh, Ousmane Sonko mi nga xamante ne ñu ngi koy xaarandi ca Saint-Louis Mansour Faye nag ci na bataaxal jëbbal ko ko premier ministre Ousmane Sonko dina dem Ndar niki samedi bu ñu dégmal dajaloo ñetti fan niki démb bureau municipal nag jot nañu daal di rafetlu dogal. bi nga xamante ne chef de gouvernement tànn na nag Saint-Louis ngir mun a amal visitam bu njëkk ba ñu ko falee mu génn nag ci ndakaaru ci nouvelle fonction bi nga xamante ne rek moom lañ ko tabb euh, ngir rek mun a daal di seeti Mansour Faye mi nga xamante ne mi ngi ñaax askan wi ñu daal di ko gardel fas yéene gàttandu ko gàttandu bu amul fenn comme ndi ko ndar baaxoo euh, di def nag ci noone tamit nag information boobee tax na jëwriñ bi ñu dénkoon fi wàllum infrastructure exposé na doléance am ci li jafe-jafe yi nga xamante ni euh, région bu ndar mi ngi koy jànkoonteel kii di Mansour Faye nag nee na askan wi daal nañu daal di gàttandu wàllu Ousmane Sonko euh, comme niñ koy faral dek di baaxoo di def foofee ca seen dëkk ba tey rek ci wàllum xibaax bokk ci déclaration de patrimoine euh, surprise bu doy fale ca of nag mbir bu raar lañu fa daal di nemmeeku ay personnalité euh, ñoo xamante ne rek war nañu amal seen déclaration de patrimoine ñu ngi bousculer fale ca of nag titre bokk na ci Walfadjri quotidien di kat ci tey jii ci alxamis bi nee na ginnaaw suuf si nga xam ne am nañ ko am na ay personnalité lu mel ne ay ministre ay directeurs généraux ak ñoo xamante dañoo akki ci ngir rek mën a fësal loole nag mi ngi ñëw ci rythme bu tey waar ndax ci jamono ji nguur gi fi nekk dafa bëgg auditer lépp lu jëm ci institution yi nga xamante ne ñi ngi fii rawatina ci administration bi waral nag képp kuy directeur nag nga jël say matuwaay te xam ne daanañ la woo lu jëm ci ARP AT ARTP SAR CAN Coupe d'Afrique des Nations 2024 ak Coupe du Monde 2022 Diomaye nag mi ngi benn waa IGE ci plus lu toll ci juróom-ñaar fukki direction yi nga xamante ne Euh, agence ñoo xam ne ñoo doon sekk wàllu woowee xibaar bi ni ki démb la woon ca conseil des ministres président Bassirou Diomaye Faye yónnee na ay nit ñu fas yéene amal audition ci juróom-ñaar fukki direction agence fonds public audition yooyu sax nag mission la ngir ñu xool rek naka lañ doon doxale ci seen i biir xaalis buñ doon financé ak luñ lañ doon jox ngir ñu mun a daal di liggéey ndax defee nañ ko nuñ ko waxee woon bokk na ci CNTR di fonds de soutien de l'énergie commission d'attribution des licences de pêche Air Sénégal agence pour la promotion des investissements et des grands travaux APIX aéroport international Blaise Diagne société africaine de raffinage di SAR ak lii di nationale Euh, sénégalaise di l'ONAS autorité de régulation di de régulation des télécommunications poste waaye itam te mooy du ñu yokk rek lu jëm ci aide de la presse ak fonds d'appui édition ak lépp la ci àddu kon nag mu nekk kuréel yi nga xamante ne entreprise yi daal fas nañ ci amal ab audit di dogalu président Bassirou Diomaye Faye ñoom ñëpp nag fas yéene saytu ànd ceeg Ousmane Sonko mi nga xamante ni mooy élimaanu jëwriñ ngeen ñu gën a mën a wéyal nag seen i liggéey wàllum xibaar xibaar bokk rek nag ci euh, leneen euh, na bokkum ki nee na euh, ki nga xamante ne mooy Amadou Ba moo ko doon financé loolee di ay kàddu Las Badiane Ousmane Sonko nag respecté wul nag sénégalais yi ci boppu institution waaye tamit respecté wul suñu institution ndaxte amul capacité yi ngir rek mën a nekk premier ministre xibaar yooyu nag kii di Thierno Bocoum moo ko wax président bu mouvement Agir nag ci conférence de presse bi nga xamante ne mi ngi ko doon amal nit ki démb benn sortie boo xamante ne indi na nag ba kenn ku ne si joxe xalaatam kii di Las Badiane bokk nag ci mouvance présidentielle jamono ji génn na ngir mun a tontu nag indi ci ab leeral tontu euh, nee na mënut nag confirmer ceex na boppam ne nañu xam ne rek kii di Amadou Ba moo ko doon financé te moo ko permettre tey mu daal di amal confirence de presse loolee la Las Badiane wax nag membre bu coalition joomaay la euh, Las Badiane nag nee na dem na fu gën a sori sax ngir gën a indi ab leeral nee na nag kii di ceex na bokkum ab mën a manipulateur la waaye tamit ab faussaire la euh, ba na rek mi koy prévenir ci lépp lu muy def mu moytu di tuuse di laal ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ndaxte dafa mel ni daal ki di Thierno Bocoum amul benn diplôme bu ko permettre mu daal di àddu